Habibou ki nu ñàkk tey mooy Serigne Saliou Touré di ko yàlla baaxal di ko takkoog Serigne Saliou di ko Serigne ci moom waaye xoolal ni kees nekk frontière tarixa yëpp wër ko te musalaaji kenn masala ñëpp xemamoon yoonu Serigne Touba. ngir sëñ Saliou bu nit faatoo nag yooru xabree moo kadem moo baax waaye bu sigil ndigaale bare kam bàyyee baax li baax di baax baax dem bàyyi fi ku baax moo gën gis naa sëriñ Cheikh waxtaan na ma moom daral naa xelam bàyyam liggéey na loolu ba nuy tukki loolu doon fi jóg Abibu Ablaye xanaa ñu barkeelu rek waaye dañoo dégg ay kàddu yu am solo léegi mm-hmm. ñu wax ko sa digganteeg sëñ Saliou Touré. wallaahi ñu ne sëñ Saliou Touré romb na sa pir. jóge jeewal jóge jeewal ñëw sa kër ni faw mun sañ ta romb sa kër. te jaaru jaaru fa ziar. dëgg la ba mu ñëwee nga génn njaboot gi yëpp. wallaahi daal koy jëbal kon loolu nga defoon. tey jii ngay ñëwaat ci gannaawam di ko feddali lii rek mooy kóllëre te matale nga ko ba mu mat sëkk loolu mënoo ko wax waaye ñun dañ koy wax waaye ñun sembron defal nañ taw féex fii ci jàkka ji mhm. ñu fekkee muy ci fulku bi. jamono yi nga xamante ni bu ñu daan jàng fulku bi. benn cafetière café kenn du ko jeexal. dëgg la waaye dem na ba fi ñu toll nii. fulku yi bu ko sëñ Saliou Touré di def. àdduna sépp ñëw fii Thiès. nu ñu mel rek sëñ Saliou Touré moo ñu moo ñu ko meloon. ndax def na ñun loo xamante ni maa ngi ñaan daal li mu jàngale. yàlla na yàlla nañ ko jëfee. yàlla nañ jëfe li mu jàngale lépp. keroog bi mu ñëwee ci kër gi dafa ma ne ma génneel sa njaboot yëpp ma ñaanal leen di góor te moo mujj ci sëriñ Saaliw ñu di ko jaale Cheikh Mahamadul Muntaxa lu ko ci war def na ko waaye jaal ko sëriñ Cheikhum sëriñ Saaliw waaye jaale ko sëñ Moustapha Saliou mi nga xam ne moo ak yaayam ñoo bokk wenn waajur léppi sëñ Moustapha Saliou ànd na ko ak sëñ Saliou Touré kon noo ngi ñaan daal euh, moom xam naa ne mi ngi gisee xaritam mi ngi gisee xaritam jërëjëf. jërëjëf.